par paree élection le président naturellement a def un remaniement euh, wat le poste de premier ministre est-ce que xalaat Ngani, vu le contexte ak enjeu yi Sénégal surtout l'industrialisation pétrolière bi les législatives de juin prochain ce premier ministre devrait sortir de la grande coalition présidentielle ou le le président mën na ko Sénégalais bi les compétences xam nga ben, da nga poser problématique bu am importance te Sénégal ñu war a taxaw di ci waxtaan. xam nga damay fàttali bi may le président Macky Sall aux élections de 2019 dañu toog man ak moom ñuy waxtaan ma koy wax ne monsieur le président pour que nga gagné élection yi c'est la notion de relais moo la mën permettre nga dem parce que il faut avoir de bons relais pour que nga mën a am population des relais mooy ñu koy jottali. relais mooy ñu koy jottalil. nekk auprès des populations. di leen dimbali ak di ko defal les bons retours pour que mu mun a corriger li nga xam ne moom mooy. moom mënul nekk fu nekk. moom mënul nekk fu nekk mais ña koy nekkal ñoo war a mat di ubbi seen téléphone di nekk ci wetu nit ñi te di ko jottalil li war bàyyi ko nag moom mu xool lan la ca war a def ci li nga xam ne moom nga jëli ci population yi muy benn mu ne ma Thierno loolu moo gën a yokk sax suma engagement. ma cerno xam nga lu ma nar dama bëgg défi yi nga xam ne bi la waxuma la Sénégal mais mooy interpeller Afrique mu des hommes qui gèrent l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers nga xam ne li ñëpp bokk li ñuy jiital au lieu que ñuy jiital seen bopp te ñu am fit pour mën a wu pour que ñu dem man ko mais monsieur le président c'est le combat que j'ai mené auprès du président Abdoulaye Wade bi mu demee bay laajaat mandatam war a jeexle bu ñu toogee mu bëgg a libérer Afrique bëgg a libérer Sénégal les grandes puissances occidentales ne góor gii nañ ko dindi duñ ko bàyyi lii mu fi bëgg def tàmbalee ko ci tubaab yi mu koy continuer man ko combat boobu moo taxoon ma nekk ci wetam bi mu defee discours am à la FAO ne day ñibbi pour que ñu serrer ceinture am ñu jóg taxaw jël suñu responsabilité régler suñu agriculture régler suñu problème infrastructure parc xale boo ko dee jàpp ci mbaggam ba mu jóg da nga koy bàyyi mu dox c'est ce combat là qui faisait que nit ñi di ko xeex jël ay jeunes qui n'avait rien compris jël ay répondeur automatique ñu nekk fii di ko xeex man ko combat boobu ma doon mëne pour moom ce même combat la bëgg a mëne comme yow parce que dañuy wax relève générationnelle nga jël mbir mi ñu dem xam ne relève générationnelle du ci kaddu ci jëf la boole ko nag

beneen bi xam man dem naa fi Atlanta gars yi dégg ma foofu ñëw seet si sama hôtel bi ñu dañoo monsieur le ministre yow dañ lay déglu mais dañu déglu président Ablaye Wade muy wax naan les compétences sénégalaises nañ ñibbisi au Sénégal mais monsieur le ministre loolu mënta nekk parce que ñenn ñi ne ma mais ñun man laboratoire bi ma nekk mais amu leen ko Sénégal ñeneen ñi li ñuy fayee ko fii mënu leen koo fay mais li ngeen war a def mooy ngeen def bréviaire des compétences sénégalaises et africaines yi nek ci biti xam nga lu leen di lu le partage de savoir sen plan directeur yi ngeen di def ak sen étude yi ngeen di def nous fay c'est des milliards nous dañuy ñëw di leen ko gratuitement di partage de savoir ba paré ngeen duñu nous ci li ngeen di def ñu leen di jappalé muy dem bu ngeen ko défé di gis performance économique yu ba di am ay moyens pour que ñun ñu war chez nous parce que nous moonu gënal mais mën nañu kon ne di participer ci la fay nak mais à condition que ngeen boole ñu ci à condition que ngeen du consulter à condition que ngeen du permettre ñu ñëw di joxe li ñu ci biti donc buñu togon ku nekk tek say rancœur de côté ñu xamni réew mi ñoko bok am nañu ay compétences mën nañu baña bok gis-gis mais des fois mën nañoo retrouver ci essentiel parce que yow consensus c'est pas obligatoire que ñu am ko mm. mais yow ma xam rek discuter ak yow xam li ngay xalaat kooku ci ay postulat en démocratie kon war nañoo mën a waxtaan seet lii defar réew mi ñu defar ko par que kenn du ko defar à notre place mais lépp nag ci bopp la que muy démocratie bi que muy justice bi comportement nit ki la c'est une citoyenneté nga xam fooy tàmbalee fooy yam ak lan moo la war Sénégal nag c'est dommage amatul benn espace de débat bu ñu mun permettre ñu def ces agences là pour fertiliser li xew au contraire dañ lay jëw nga nekk sachant yow. ñu jël quelqu'un qui sait rien de ce que tu ce que ce que ce que ce que tu parles ce que tu dis. mu ñëw taxaw di la weddi ak di la saaga bu ko defee tu préfères toog sa kër gis nga wax du man jëf xam-xam leneen mënu ko parce que mooy doxal lépp te fii la nekk ci bopp. Mm-hmm. waaw donc Sénégal yooyu ci boppam lañ ñu war a defar suñ ko defarul dañuy nax suñu bopp gis infrastructure président Macky Sall fi la citoyenneté qu'il faut am responsabilité soxla du taxaw un an deux ans du dem pont da ngay gis ñu terre bi da ngay gis photo yi ñu ko kenn mënu ko defal ci condition il faut ñu defar parce que Sénégalais di comporté jël leen nga France ñom fa les même comportement dans un an la France n'est qu'un pays sous-développé mais c'est quoi la solution finalement la solution moi, un ñu devons éduquer les masses il faut que nous éduquions les masses les partis politiques c'est une mission il faut ñu nous ko parce que les partis politiques c'est des associations les partis politiques contrairement à li nit ñi di un parti politique c'est une association c'est pas forcément la conquête du pouvoir mais moy nga dajalee ay nit former leen jàngal leen citoyenneté mën nga ci am ay jigéen yoo xam ne da nga leen di defal pousser vers automatisation di li wutee leen liggéey yore ay xale yoo xam ne da nga leen dox militantisme former leen ñu génn nekk de bons citoyens bu ñu fa génnee yow remplir nga sa mission de service public remplir nga sa mission boo xam ne bi parce que nekkoon nga utile auprès des populations parce que du ku nekk da nga juddu nekk président du ku nekk da nga war a nekk député du ku nekk da nga war a nekk maire ku ci nekk mën nga liggéeyal sa réew ci beneen façon boo xam bi du da ngay occuper ay position de pouvoir loolu dañ ko war a kii beneen bi ci des il faut deux sanctions sanction positive ak sanction négative am na yoo xam ne nit ku ko def dañ la war a teg ci yoon mais au Sénégal y a toujours le laisser aller laisser aller munute yóbbu réew ci kanam di wax mbeddum buur alalu buur yëfu buur te loolu nga wax yëfu buur yëfu alalu buur ci sa al ci sa xaalis lañ ko defaree alal li ñëpp la sans yow sans moom doo dugg oto dem ba ñëw doo def train dem dar doo dugg oto dem feneen ak ak donc il faut ku ci laal def ci liñ ci a def ñu sanctionné la dégg nga parce que am na yoo xam ni am na Sénégal xam par exemple ñu ngi ay France ay Italie ay Espagne mais boo leen fekkee ah. yeneen genre citoyen duñ duñ sax duñ duñ jël mbalit parce il y a de